Elhadji Mamadou Mar diggante merci par le maire Gaye voilà play nga arbitre sifflé na muy final poids lourd diggante ordinateur ak Elhadji Faye ordinateur ordinateur moom moo ñu woon ginnaaw noonu ngeen boo ngeen lu rusi Ndoos moom moo ñu woon di joor moo féete côté droite ordinateur moom moo ñu woon nii moom moo ñu woon ginnaaw ngeen boo ngeen bu xonk bi ordinateur Mono Ndoos ordinateur Mono Ndoss ordinateur Mono Ndoss ordinateur Mono Ndoss pël ça ngoog comme ni leen ko waxe sànq rek poids lourd bi ko jël jàppal ne saison bi yaa njëkk jël ci sa catégorie ndax lii mooy première gala de lutte bu am ci saison 2022 2023 diggante Mono Ndoss ak ordinateur Mono Ndoss jël na tànk ordinateur ba Mono Ndoss jël na tànk ordinateur ba oh rëcc na rëcc na rëcc na waaye ordinateur du la bàyyi da lay kott da lay kott du la bàyyi ordinateur da lay kott du la bàyyi Mono Ndoss fa nga dugg ordinateur du la bàyyi na Ndoss fa nga dugg ordinateur du la bàyyi moo na Ndos fa nga dugg ordinateur du la bàyyi du la bàyyi daan na la ordinateur daan na Mono Ndos ordinateur daan na Mono Ndos Ndos